Uh, alan bikum ñàkk a wekk ñàkk a jox cër boo moytuwul askanu senegaal loolu lañ nar a def magistrat yi attekat yi lii yéene kaay moo xëy di ko laajte ne ginnaaw tuumalante wàllu ger ay doxalin yu doy waar yu xam ci diggante attekat yi li ni mel foogu leen ne fa nar a wàññi ñoom seen gëdd ba askanu dootu leen wegati Assane Dioma Ndiaye na leen du mën a leen déedde lu ne mën na ci xam de maître Ousmane Sey ne attekat yi kilifteef ci seen bopp moo fa attekat yi a ah, yow seetal yow mi war a wane ak njub suñ déggee ñu naan ngaa jubadi fa ngay def lu jaarut yoon yow it nga pare tuumal këla tuumal tuumalante sulliwante mbudi mel ni tulleeg màlle neexut ba neexut waaye loolu fa ñaaw si du quotidien ne loolu lépp nag diggante attekat ba ñuy wax Amadou Dia ak njiital cour d'appel bu diwaanu Kaolack ndangaan Ousmane kan moo dox seen diggante ñoom ñaar léegi nag nguurug Sénégal makki ak jëwriñ ji dénk wàll wi dugal nañ ci seen loxo ngir lijjanti yëf yi a ah, leen di déglu ngir kan Kane lañ ko tuumaal ci wàllu na fay ger jaay dossier ak mbir yu garaaw su fekkee lu xam la ay daan tegu ci kawam su fekkee nag lañ ko tuumal amut su boobaa nag ka xoo tuumal Amadou Dia ay daan moom tegu ci kawam laas yéen a kaay na ko daan yi mën a tegu seen kaw nag mooy mën nañ leen a kaj ji dàq génn leen ci attekat yi maanaam dootuñu atte wàllu ger gi nag mën nañ leen a daan ci wàllu pénal yéen a kaay bi na yëf na nar naa compliqué de ci Ousmane Kane su fekkee lañ koy tuumal moo ko def nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy na njiitëram Macky Sall ak ay jëwrinam xam na laneen lu ñu war a lijjanti Sénégal réew mi presque lépp a taxaw jafe-jafe yu du xaaj du jeex bi ci njëkk wàllu àtte magistrat yooyu di tuumalante nañ ko lijjanti ñu ne déetewaay wàllu wér-gu-yaram jafe-jafe nañ ko lijjanti wàllu njàng me njàngale mi wàllu dem beeg dikk bi ak yeneeni mbir l'observateur ne askan waa ngi ciy xaar nguur gi ñu lijjanti ko ki bëgg a lijjanti doxalinu yenn télévision yi mooy Babacar Diagne njiital Sénéra ci Vox Populi wax na fa fukki dëggam ak juróom-ñaar yenn série théâtre ak yenn émission yi jàll ci yenn télé yi ñaawlu na ko wàllu fitna daal ak néegu sëy moom la ñuy xaawi ci mbedd mi te fa ñaaw la ñu ñaawlu ñoom askanu Bambilor mooy seen maire ba Diagne Diop nee nañ fay caxat-caxate seen suuf sa ci xanam gu garaaw te jéggi dayoo ba tax ñi ngay sàkk ci njiit réew Macky mu dugal ci loxoom lu ko mooy du baax si ñoom waa grand place yéen a ñi ko xamal la mu ñu xamal moom Dakar Times mooy tooke ga kalaate woon ca port bu Beyrouth boo mooy tuut dana xam caaroy sur mer de yàlla tere nag ayaw seetal juróomi téeméeru ton ci ab poudre boo xam ne tooke la ci gàttal moo raw bomb bu fa kalaatee du baax na ko kilifa yi lijjanti laneen kilifa yi war lijjanti mooy jëfin wu waroo ci wàllu domaine national enquête a askanu Sénégal mën nañoo xëy fippu de nay leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy na soldaar ya foqarti nguur ga ca réew Mali coup d'état ba xam nga lu ñu wax léegi nee na ñetti at la ñuy toog ca bopp réew ma door di amal ay élection te président bay jiite réew ma nee nañ ci ñoom lay bokk ab militaire lay nekk gouvernement ba tamit ministre ya gën a bëri ay militaire la ñuy nekk njiiti réew ma woon nag IBK nee nañ su ko neexe génn dem faju dil siwaat ci réew xam les éco a kaay ñi ko xamal réew mi waa CEDEAO yooyu fa ñoo wax ne na ko soldaar ya delloowaat président déedéet xam na da leen lu mu tal maître El Hadj Diouf ne waa CEDEAO yi xam ngeen loolu ngeen def ca Mali ak la ngeen fa wax wàllu fumiste dëgg la kàddoom yaa ngi ci Vox Populi li baaxul nag ci ab entreprise bu ñu wax wuute mooy na fa ñoo liggéeyaat tabax poste police bu kër ayib ak bu kaarang léegi police bu Sénégal war leen a fay ñoom entreprise ba lu ëpp juróom-ñetti fukk ak ñetti millions waaye ba léegi jotu seen xaalis ba tax source a yéen a kaay nekk fi mu toll nii police ci boppam fañ koo monote may leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne corona bi rayatina juróom-ñaari doomu aadama ci ñaari ñaari fan fanweer ak juróom-ñaari doomu aadama seen bakkan a ngi ci xotti gerte ba tax source ay yéen kaay na jàngoro ji corona bi ba léegi mi ngi fi di gën a law wal fajiri yéen a kaay na ko pour dëggal li ngay wax Macky Sall njiit réew mi ngir dem France Paris am na ñoo xam ne ca ambassade ba fa la ñu liggéeyee te fañ leen a quarantaine l'évidence yéen a kaay di ñu xamal ne fan yi ñu jagleel wàllu jëmbat garab xamal nañ ko ca diiwaanu Kaolack ndangaan rawatina commune bu Latmingué maire ba docteur Macoumba Diouf ak ñam handal jëmbat nañ fa lu jege junney lu baax la keneen ku def lu baax mooy njiital conseil départemental bu Kaolack Baba Ndiaye commerçant restaurant ya lakkale ca mbaaru fëgg jaay fa la dem samedi bi weesu jox leen juróomi tonn ceeb dimbale leen ko direct news moom di ñu xamal ne financé ndaw ña ak soxna yi ci Sénégal moo taxoon njiitëra Macky Sall taxawal fi deer waaye li ñu nemmeeku mooy ak lajj gu mat sëkk moo ci am tàggat yaram Bayern Munich xanoona kubba Ligue des champions juróom benneel yoon ginnaaw bu mbuqee démb bu Paris benn bal ci dara ba tax stade yéen a kaay ne Paris kay lañ doon gént saan muy jël Ligue des champions na xañ na leen ko football kat yi fa di jooy na ko maa la dàqarate marseille nag di ab diwaan bu nekk france ñoom fa ñoo kontaan ci liñ buqi Paris ndax ñoom ñaar xaj ak mus leen duñ laale man ma laal réew mi yéen a kaay fekk fa njeextalu ay bés bii bakkan yu bëri yéen a kaay bi na root nañ sénégal yaw seetal xam na ponkal mu nekkoon mfdc robele ca Casamance rey nañ ko ñu ne déetewaay am na ab sénégalais bu nekk gabon rey nañ ko moom it xam na tamit ab xale bu góor bu oto camion rey ca Kaffrine xam na tamit benn borom oto fa rocc fetal tiire ko tëf ba mu nekk ca diggante dund ma yokkal la ci mbir mu yéeme bu am ca tiwaawoon mu seetal benn waay bu ñu wax Cheikh Kan moo jàpp jabaram bu xam ñaar fukki at ak juróom daal di koy rey ba mu faatu ñàkk kanam allah ñu ne déeta waay moom Cheikh Kan jàpp doomam liir bu am benn at daal di koy rey ba pare nag daal di xaru rey boppam allah yëf yaa nga amee ca cité da baax jàkkaarloog station EDK ba ca commune bu Tiwaawoon libération ne li tax ñu yaakaar ne Cheikh Tidiane Kan moom fa xaru gannaaw bu mu reyee njabootam mooy ne fañ faa fekk ab leetaru tàggatoo commissariat police nee na ñu gisuñ ci Cheikh Kane mandargab nit ku xaru kon yëf yi leeru de mën naa xam fañ ko ray ak njabootam mën naa am fa xaru am nañu seede sax ci yéene kaay bi ci guddi gi fa organiser ay zikkar gisuñ ci moom lenn luy wane ku bëgg a xaru wala ko am lu ko naqari laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na am na benn waay bu xam jabar bàyyi fa jabaram jël benn soxna jigéen yóbbu ko ca auberge ba ñu nekkal ko fa moom waaja nag mujj nañ koo fekk ca auberge ba mu faatu ñàkk bakkanam allah l'observateur moo ñu ko xamal ma ne lii wax def lu bon ba dee fekk la ca ku ne war na koo muy tudde ndax boo yeggee looy wax yàlla